baa ngay wax ak dëggool am na lu koy jox seytaala xam nga lii daw na yaram de nga nekk ci géew nii sa doom am na lu ko jox am na lum ko jox mu ngay dem di ko booy ñang topp ci gannaawam ndeysaan taala ku jur doom deewoo yàlla nañu yàlla may suñu njaboot nekk njaboot gu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy sottil ndeysaan taala oo taala waaye la dëgg nga ci ba ñuy wax ak moom xoolal nag am na koy wax ak moom taala Talla nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye ñu ngay visite gaa yi Lac de Guiers nay loxoom ñu ngi koy seet passé visite ndeysaan tey le 13 juillet yàgg nañoo coow combat bi am na lu boy ñang suy ca kanam ga laa ilaha illallah eh dëgg supporter yi ku ne ngay ñaan boy ñang Lac de Guiers numéro 2 mi noo koy def tey boy ñang ndax Lac naan Lac nee na ko déedéet naanuma fonde duma ko naan waa Pikine seen doom a ngi Boy eh, tali bu mag tali bu bees i ko taaf lépp ci Pikine ba ginnaaw raay waaye Guédiawaye am na li ma laay am na njaareem am na tamit marché bu bees waaye am na amoy lépp ci Guédiawaye seen doom a ana waa Gunaas Lac de Guiers 2 ngi seen doom ay Talla Ndiaye ñuy naa ñëpp Talla Ndiaye waa France waa États-Unis sama doomu nday Youssou Ndoye ca États-Unis nuyu naa ko Talla Ndiaye l'international ak sunu yaay ja sunu yaay Penda Diawara du mën a ñàkk ma koy nuyu Talla Ndiaye Talla nuyu naa la ana jub seen te patal seen Abdou bu yankaaw wala Aliou yankaaw nuyu naa la daf may solal Abdou bu xarañ daf may solal rim kaa ku tur borom Touba may ñawal laa ilaha illallah maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam Couture daf may ñawal nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye waaye duma mën a fàtte sama waa dëkk nag waa ak yaay fa laa dëkk nuyu naa waa ak yaay rawatina sama maire commune maître Pape Sène maa ngi lay nuyu di nuyu waa Ndondol yëpp eh Talla Ndiaye bés ñu ngay seet ñaari mbër di wax ak ñoom lak arbitre bi yow lay waxal lak wuy wala dañ koy woo wala lu xew. eh Lac de Guiers booy ña nga ngay kàbbar Talla Ndiaye wàllug teel la olof yàgg na la koo wax Talla Ndiaye série ku ñëw ci pind bi yem Talla Ndiaye ci Leewtoo TV la Babacar ay wax Talla ay filmé eh Modou Mané dawal nuyu nañ suñ DG Pape Talis Faye. Lac de Guiers am na benn avertissement. Lac de Guiers jël avertissement waaw loolu leer na DG Talis ñu ngi lay nuyu monsieur Diaw Aïda Diouf nuyu nañ Leewtoo yëpp daal. armi soufflé na ñu ngay lewaatoo lu waay doon jaay day lamb tey Lac de Guiers la tombar Papa Sow la tombar na Yaxya Jóob Yékini ee eh, Lac de Guiers foo jëm boo génne ñu dagg sa xaalis loolu yoon da koy tere dañ koy dagg Taala Njaay buteelam lay jëli sotte ko ko sànni na butéel ba taala xool picc yi taala élection bi nañu ñëw lépp daa war a leer fii tey bëgguñu lëndëm ak Leewtoo TV e eh, du mën a ñàkk jib seen tapatar sama rakk la sama doom maa ngi koy nuyu laa ilaha illallah mbër ngi ci giw bi Serigne Ndiour borom Italie Ndongo Fall Italie Mbacke Kebe Italie Cissé ca Brésil moo jiite fan si club Leewtoo Cissé Brésil doomu ndoyu général Malika waaye fan si club 100 pour 100 Babacar bi nuyu naa leen du ma leen fàtte ñoom Cody ñaari mbër yaa ngi lewaatoo Cody ñu ngay lewaatoo bu leen ko jaawalee Ali bu yanka bul jaawale lii ñaari mbër yaa ngi di lewaatoo ci Leewtoo TV la ñuy lewaatoo songo bëree am wala luy am ee eh, Talla Ndiaye yàgg naa la ko wax walluk teen la ndeysaan l'attaqueur pied gauche garde normal Boy Niang pied droite fausse garde l'attaqueur ngemb lu noir wala sax bleu foncé waaye toccal koog lu weex ca ginaaw booy Niang ngembam daa marron mu jiital ki bu noir takk ca bopp ay dàkk waa ndigale mu takk cay sengoor loxo droit ba it bëri nay sengoor a tudaa ndax day feeñ tey waa géej way laga ngi di bëree Pikine Boy Niang ngi di bëree eh lamb Boy Niang loo bëgg dem wala lan loo bëgg Boy Niang dem wala lan combat bi mbaa du ñuul yaakaaruma ko bu ngeen bëree ci seeni valeur cey Talla Ndiaye Talla dara xewagul de Babacar dara xewagul Talla dara amagul de Babacar yaakaar kan moo war a dem ah ki war a dem de su ma xooleen ni muy bëree daa mel ni booy ña nga bëgg a dem. waa daa mel ne moo bëgg a dem. daa mel ni dem lay wër de. daa day xaar ba da ci ànd ak patience. du ko jaxase du ko jaawale. waaye yéen internet bu leen jaxase leen jaawale nuyu naa leen. soppey Leewtoo yi kenn du yéen yen a ñuy may doole waaw waaw yéen lebru woon yéen day ñaaw. fu nu yegg yéena Talla Ndiaye Boy Niang Dégaule Lac de Guiers Ali fii ci Leewtoo TV e combat ngi combat ngi avertissement verbal yéen a nekk avance waaw da di tëdd pom bëre yéen a laaloon avance ku ne yóbbu sa di dépense di dox say soxla fii nag lay tëggal la foo dem yaa ngi fay def lu baax booy ñang ko dina ko de lag daa dóor booy ñang fayu ko du ko waaw waaw gëddante nañu ciy korosé gëddante ciy korosé Lac foo jëm Boy Niang na ko Lac aku ko da doon jëli waa yeggul da doon jëli waa yeggul da doon jëli waa mu ngay jàpp faq faq na ko mu bañ Boy Niang loxo droit tam ba jàpp na fu dëgër waa la mu tee bari na de Lac de Guiers la mu na léegi lu fi des bëre Talla Ndiaye jàppante nañu de Boy Niang da koo ndengeeñ waaw boobu la ca mbagg ma laa ilaaha illallah ñoo ca Issa bu Eumeu Sène sa mbër maa ngi waa Issa bu Eumeu Sène seen mbër a ngi Boy Niang Lamine bu Eumeu Sène seen mbër a ngi Boy Niang waaye Awa Diop a ngi Lac de Guiers numéro 2 waaw waaw mu ngi nii di bëre de laa ilaaha illallah ne ngeen ñante saxal ko ba mu sax mu nga ca de taala yokkal sasum taala dama bëgg lu leer taala njaay Babacar yokku naa sama sum Babacar ana ah, yokkoo yokku ami Sidibé son an ah, nuyu naa la madame Sidibé di nuyu sa borom kër Cheikh Sidibé sama xarit la ami dañoo yàgg madame Sidibé nuyu naa la kenn du kooku Ami Sidibé jigéen ju baax wallaay mooy Ami Sidibé Ami Dia madame Sidibé ñu nga jàppantalee ñu nga jàppantalee jàppante ba tar na foofu de hypercule dugagul Boy Niang ngi koy puus ndengeñ ba amiti Lac de Guiers ndengeñ bee ko gêné man daal lewaat booy ñaa ngi dox tuuti di avancé. waaw Babacar waxoon nga ma li ñuy wax ci signature li ci géew bokkul. wallaay Babacar ak leer waxoon nga ma de nañ laa lay wax. signature contrat moom lu neex waay wax. waaye arbitre soufflé. bu xelam dalee rek mu def li muy def. waaw loolu am na de loolu de téere la. kon booy Niang mooy xale. Boy Niang dinañ yaay xale. kon yaa war a bëri la kaay la lak daw na jëli ko de waaye jël ba baaxul jëli baaxul jëli ba nga ca ñoo nga ca de jàppanteeti nañu de xanaa di ngeen bëre lak bëre leen jóg fi waay bëre leen jóg fi waay ay waay bu leen niilal bi combat waay bu leen niilal bi combat bu leen bi combat ni leen bii combat lu xew mi taala nañu ba ñëw ñoom ñaar daa mel ni li gars yi doon xalaat est-ce que nañu forna ba de Baba Babacar li gars yi doon xalaat dafa mel ne am na. booyal nañu fourne ba de. boobu ba léegi ñu ngi leen koy wax ñu ne loolu du am mais. tey ah mel ni dañoo bëgg a teg bara. ah doy na waar de. xaw ma ah, ñu. <laughs> daa am lu sama xel di dem. damaa naan lu attaaya ah, na waar de. Babacar nañu ñu jóge fi ñibbi. ah de moo yoon wax dëgg yàlla. ñi ma gis daa mel ni booyal nañu fourne ba yëpp. weer a ngi nii ñuy xaar ah, combat. Ndiaye def na li ko waroon de. ah tamit. Alburax na li war. organisateur yi def nañ ñi war sponsor yi noonu amateur yi noonu journaliste yi noonu tëggkat yi noonu waykat yi noonu sécurité bi noonu kon nag yéen ñaar a des bala leen jóg si waay lii nag moom lii moom ma ne benn avertissement ñàkk combat bi bu góos ñamaat na ko góos daw na jël ko mu génne ko sàcc na ko mu génne ko sàcc na ko mu génne ko mu nga roofoo ca kaw mu ngi koy faqat caxabal door mu bañ caxabal mu Lac de Guiers jàpp na Boy Niang jàpp na est-ce que jël mënta am fii nga yaakaar jël lu fii Talla Ndiaye Talla mbaa fii Boy Niang tey moytu ñu ngi lay dajale na ko takk na ko laa ilaaha illallah Lac de Guiers de takk na Boy Niang Boy Niang ak Lac Lac Boy Niang na ko Lac de Guiers daan na ko Lac de Guiers daan na ko de Lac daan na ko de na ko Talla Ndiaye Lac na ko Lac de Guiers daan na ko arbitre ba juumoo daala xalifa joxoon na ko xalifa noon na arbitre bu fisila bu bi xaw lu tax mu atte kon comme jël amul moom yaakaar na atte sama gis-gis avertissement Boy Niang ku nekkaat léegi ku nekkaat Talla Ndiaye demal temps ba day jeex cinq avertissement cinq avertissement temps jeex na arbitre tas na combat bi Talla Ndiaye lii gàcce la Talla Ndiaye lii rafetul lii neexul waaye ñii ñii ñii Talla Ndiaye lii Talla Ndiaye lii